dañ daan daal kii dañ koo sëlëm. non mooy Ama bu Mbita Ndiaye booy bi doon ñëw ak yaay waaye quart de la daanoo tey. ni nga daanoo mi yàlla baax na nu ngi ñëwaat bee passé de ngor ñaax moo nu fi indeen moo nu daan fee ngor ñaax moo nu fi indeen. waaw sant yàlla rek xale la mu ngi ci affaire yi ma ne sant yàlla rek xale la mu ngi ci yàlla dogal na daanoo quart de bu ñëwaatee ma naa finaalu na liggéey rek yàlla baax na dem yàgg maar xale bee moo final woon kera rajaxe final woon eh dina ko daan rajaxe dina ko tas yaakaar eh tas yaakaar daan na ko ay waay tas yaakaar tas na yaakaari jàmbur ay tas yaakaar mooy borom jooy ya xame nga ko jooy day jooy rek maa ngi nuyu waa Baobab sa booy baa ngi nii Mansour nee na léegi day garaaw garaawul ma ne ko da ngay sóob yàgg maa sa patron taxawal ni da koy bi daan na ko daan na ko daan na ko waaw wër ndoom ma sukkar bi daan war ak man ma ñëw ma si Babacar ngay eewal waaye Zé général Malick ak xale ba ndeysaan ee eh, waay waaw waaw waay lamba neex waay maar yaa ngay am somba général Malick kaa ngay bëre solante nañu ñoom ñaar cey loola zeeloo nar seeda koo bëgg a jaay doole wala eh way général Malika xale Malika xale bi ndeysaan taf xale bi bañ na de billaay xale bi bañ na xanaa xamoo ne bëre koo xam ne dañ na yaa ko doole eh daan na ko daan na ko ah sotte na ko daan ko doole jaa tax nee na ko jógal booy jógal lool du dara kii doole jaa tax xam nga doole nag doxul jàmm waaye cey Fallou Ndiaye ak le 10 ee Yaxya moom nga fekkoon léegi ci buntu bi Ibou Senghor numéro 2 Ibou Senghor numéro 2 na tey fii la ko jëlee woon kera ndeysaan jël nañu Ibou eh Ibou Senghor jël na tànk ba bàyyiwaat na ko ngoobu na ndigg la lu ko bëgg a def sukkër bi mbaa dawal xale ba baa na koog wet ga yàgg xool fa mu teg loxo ba gis nga fi Ibou Senghor teg loxoom ah booy bi na moytu de waaye mbootit mën na fee am de waaye sukkër bi ba ca suuf booy ba bañ la na ko da koy wër wër na ko ndombo dina ko daan de wala Ibou Senghor lu dal daan na ko wala trois appuis jeexagul wër ndombo booy da ngay daanu booy daanu nga cey waay mbay ak lum waay mbëre yëngu nañu de hey aada booy bawol aada booy bawol buur loo bëgg a def nii aada booy bawol buur loo bëgg a def nii buur géwél lum bëgg a def nii eh dina ko wër waay bañ na buur lu mu bëgg a def nii waa lii mbaa yombul ah dem de bu dem jotee ma dem de ee eh way waay lii nar naa neex waay ee eh, eh, ana wër na ko buddi na ko dóor ci suuf yàgg maar buddi dóor yàgg buddi dóor ngi xool aada booy bawal xale parcelle la bàyyi ko xel Franc wàccaat na tey Franc wàccaat na tey cey lool eh Franc wàccaat na tey xool mbër mi jeex xoolal kii jeex yàgg maar xoolal kii jeex Libidor xool mbër mi jeex ay waay maar kii xanaa lu ko réer waa kii day jeex ay gàllaay lay jeex wala xaalis maar mës ngaa jeex ay waay njeexaat a ngi nii gisagul li muy jéex kii wan leen koy gàllaajam waaye Franc Libidor a nga ca kaw waajaa ngay jeex rek ñee ñoom jeexuñu boo xoolee franc samedi passé moo daan Serigne Ndiaye libidoor Serigne Ndiaye ko daan samedi passé libidoor bu Ngunjaan mook franc bu parcelle hey, la ilaha illallah la ilaha illallah ay ay Fara ay Fara waaw waaw waaw cey Fara kii lekk na nga lax de wari na de moytu leen ko ah baax na naan na nga lax ba doyal te nga lax ak buy yàgg maar ànd ak diga diga bu foor suukar sa neex baax na xool ko baax na baax na mu ngay dem boo xoolee combat bu jot wala tournoi bu ne dana dem demi-finale mais fils de Batlel Sikki maa ngi lay mbër ci de ton toogu ma ma dara jaar baax am nga jàmm sant naa la baax am la ak Ibou Senghor seen problème non dara lamb la dañoo war a bëri léegi léegi quoi waaw tirage moo ñu war a bëri léegi léegi nambar tirage boo roñ léegi léegi ma ko léegi léegi tirage la bëgg boole ñu jàpp ñu dem taawul ba léegi ñu dem taawul ba ma ma ñëw ñu dem taawul ba la ñu boole léegi léegi Moussa man Moussa déglu ma lamb la rek lamb la rek lamb la man man du ma sama rom non man du ma sama rom boo bëggee koy teg nga dem teg sama rom man du ma sama rom lamb amul morom lamb la yaa ngi dégg non non lamb la amul morom ma cer yaa ngi dégg man dama la respecté eh, respecté ma man du ma sama rom dégg nga waaw léegi baal ma non non man du ma sama rom man dañu war a bëre dañuy bëre nabar ñu bëre nabar dañu war a bëre ma yow man du ma sama rom nabar ñu bëre laa la wax dama teg sama rom bu may bëre ba nabar ñu bëre nabar ñu bëre kayo cay yàgg maar cay Equivox TV. waaw bàyyi la cey Equivox. da nga war a bëri nabar da nga war a eh, sa morom. lan mooy la dafa am licence ma am licence na ñëw ñu a bëri war a bëri laa cey Kaay Maar. man magam naa na ma jox cër quoi am na loo xamante rafetlu ñun ñoo bokk Pikine yaa ngi dégg am loolu la ma seen problème ki ma xam nan maa ci rek moom man li kii gën ma xam nan naa ci rek moom i ñun ñoo bokk Pikine daan naa booy bi mu fekk ma ni manam baba la lan la may toppee kii bi ba may boo kii sama la su ko daan dama ko war a daan lan la may toppee ni di ma ciblé waaw dama jox cër waa yow kii duma moromam kii bi may jël ay trophée di jël ay mbokkam xamuñu ne dina dina dem ci kii boo bëree boobu ju dugal la mais tas yaakaar. nuyu nañ mais ci ne. oui maa ngi sant Serigne Touba. mais yaa am jàmm. maa ngi sant Serigne bu wér. mel ni yaa waaw maa ngi si dal rek la ma gars yi kii loo waaw damay dal waaw. di waajal lan final. waaw kontab rek. waaw waaw. ci kanam gars yi ñoo recevoir. dañ maa fekk si sama koñ la. ah yow man Pikine laa juddoo fi laa yoroo fi laa màggee. waaw. am na waaw puissance. Sané si loo ne. sant yàlla lépp jaamu. am nga jàmm. alhamdulilah sant yàlla wér. mais samedi comme tey dañ laa teel a éliminé mais tey gis naa sànq yëkkati booy ba ci kaw dóor ci suuf. waaw gis nga làmb dañoo dañoo ñëw si waat rek dañoo ñëwaat wut si rek di ñaan yàlla su tural nu rek. tey am nga yaakaar sa bopp tey. waaw man sa suuf confiance laa ñëwee de xëy na looloo daaneel sax chaque moom laa ñëwee xëy na débat loolu daanu mais yàlla baax da ngaa bëri wax lu seen problème dafa nekk ci làmb di yëngal rek man mu bëgg ji di neex man ko baal wax di ñëw ñu bëre loolu la rek <laughs> du la neen ñaaru ci mukaay yi bële bu général Malika bi bu booy fay te boo xoolee ouverture saison bi teeree gaal gi ñoom ñaar fa bëree demi final combat bu metti général daan ko tey nag xam nga li olof naan digalooy tool ñoom ñaar ñoo digaloo ay cumukaay tey Boy Faye à gauche Zé à droite kee nekkoon na ca Falaye Balde kii nekkoon na ci bàj seeraas gaay digalooy tool ci loone maa lay siyaar tey yéen a digalooy tool waa mais noonu la daa tombe mais keroog lu mu la daane gaal gi ah waaw maa ngi doon compétition rek parce que rek jamono biñ ci nekkee dëgg sax waaw a na demee ne dañu dem ba mu yàgg dem ba désespéré après président bàyyi lépp yi nekk. da ngay maye. waaw gars yi la ñuy wax mais ñu ngi leen di jégal maanaam wut bi la rek gars yi yéene rek la ñuy waxee. kii man nga ci moom dara xool ko. ah waaw doo ko xool. mais lu tax mënu ko su day mel ni man dama koo ragal. man maa bëgg nga xool ko ñu lay seetaan bëgg nga xool ko. général eh. c'est wuyul sa waay eh. xoolal kii. saa yi man kii xool ci moom mais kii déggoo lu ma la kii Babacar loolu amu ci kii amul leen loo xamante ne ma ko sóor du loolu. waaw booy fay gaay gaay gaay see maa lay siyaar. loolu siyaar ci loo ne. tey tey kaay kaay da ay tool tey de. woyuma see kaay. waa non kaay. yéen ñaar da ngeen a digaloo ay tool tey ewe eh lala lala lala ewe eh sa waaya ngeen ci kanam tuuti rek ci kanam tuuti rek cey lii waaw waaw way waaw waaw ee eh, way waay bii combat waay mais waay dina keroog bi koy daan daa manqué compétition booy fay. waaw ah. man de damay soog a tàmbali. waaw. mais tey lan moo tax seen cumukaay yi tax a ni ah est-ce fekk ma fi. yaa ko fi ji. waaw fii ku fi teg man la fi fekk. mais man li ma jaaxal ñëpp koy laaj li ngay def mbër yi lan la. non lamb la rek ay xale lañ waaw lii dañ cee toll bu weesoo après day jeex waaw dañoo war a wane suñ bopp bu baax. looloo waaw loolu waaw. waaw waaw. waaw. waaw Bakar. ndeysaan neex waay. daa war daa war a xaar ci ñun soxla. xoolal booy fay waaw waaw eh way ndeysaan waaw waaw xoolal gaay yi amateur yaa ngi toog ñaar ñii ku ngeen àndal kii ak kii général ak booy fay ah général kii nag déet waay cey lii ay maar waxoon naa la ko kera de yaa ngi filmaati de banaana ba génn na de ñu ngay saraxee banaana de gis nga banaana ba xool ki toog ci cumukaay li mu ngay dégluy vocal lii mooy sumukaayu général cey làmb Equivox TV a maar xoolal li ma see jox tàndarma lañ ma jox ay maar di nga lekk tàndarma waaw waaw xool lu ci mukaay bu booy fay ndeysaan xool bi ban xoolal xoolal xoolal xoolal xoolal lii maar laa ilaha illallah ay yàgg maar ay yàgg li xama béjjëni lan lam ah. béjjëni béy la may nuróol ah. waaw waaw béjjëni sikket béy wu góor am sikket cey làmb ndeysaan kii doomi mbër la doomu Pape Diop Boston la maa ngi lay ziar maa ngi ziar maa ngi ziar grand tey da ngaa ñëw ci tournoi damaa ñëw rek compétir si gars li ngay bëri tournoi bëri bëri na xaw naa bëri àll bi laa ëpp lu may bëri sax am na loo ciy gagné waaw gañe naa ba tey daaw rek lu ma gañe bari na de waaw. ana père père Pape muy muy fa muy. Ah, waaw muy tane bu baax. mais kon ñu ngi koy ñaanal yàlla na wér ak jàmm waay. amiin waay amal jàmm rek baay. ku baax la. waaw incha allah waaw. Papa Diop Boss. jàmbaar waaw. amiin waay amiin waay. jaajëf jaajëf. Njaga Caam Njaga Caam waaw. Njaga Caam caatu Boston. bilaay yàlla na yàlla def jàmm rek waaw. booy Faye Blindé Boy Faye Blindé hey jàppante nañu sol na ko Blindé sol na Boy Faye daw na jël ko booy fay jël na ko eh booy fay daanu na wala beleen wër na ko eh waay ndaw xool booy fay waay booy fay way booy fay daan na beleen de booy fay daan na beleen xool ko yii lay def booy fay yee ko neex xool ko xool ko bëre yii moo ko neex baj seeraasa ko jàngal bëre moo tax nii rek la mën a mel booy da daanu dañ lay daan wala da lay jaay doole da koo bëgg a bëtt de xale ba bañ na de ah tas yaakaar ki ngay bëreel kook daa mel ni bañ na ko tas yaakaaram de baax na kook bëggul ko tas yaakaaram galaay ah galaay ana Assane Fall borom textile global ma nga fa di baax rek soo bay sëñ Fall boobu waaw maa wax loolu billaay moo mën a joxe yii ak xamoo ci dara sax te mën a jaay lu baax boo ko toppee doo rafle waa ji mooy daan na ko Christopher Lenski daan na tànk ba la def da ànd ak moom loolooy coppet sànni maa la wax loolu waaye doo des dara tas yaakaar seen lamb ji métti na lool kera moom mais moo final woon ak Franc moom mais tas yaakaar mële ah kon tas yaakaar mi yàgg naa tas yaakaar Pikine gii la dëkk Pikine fii waaw Pikine gii ci côté arène bi sax moom xanaa de miin na fi léegi ku nekk ndaw la na ko lamb yëkkati na ko yàgg maar daan na ko. doole doxul jàmm baba gis nga ko def. def na ko nii mu rëcc ko bëgg koo bënn. waaw da ko jàpp ba mu wóoraat tasaat yaakaaram. wallaay wax nga dëgg. tasul yaakaar tas yaakaar mii. ah Babacar ko topp ba tas sa yaakaar. borom soppe yi nuyu naa waa Fass. waaw waaw dem nga fa ñu cosaanoo. ndeysaan fa ñu juddoo. kër Alaaji Dam Mbaye. ca Fass. Papa Pendalaw ba Gueye mooy sunu maam. cey loolu. Duubales waaw lees sama jox na ko si ndox ba tàyyi mu sangu baaba cey moo defoon robinet Penda Lawbe cey loolu am daaro mbay daaro mbay muy yaayu mbay jey fay waaw wa faga 1 moo njëkk takk ngemb ci faas ci faas Saliou Mbay la tudd cey faas sa maam banda doon bañ mu bëre mu joxe faga 2 faga faga mbay ba faga 2 am fa pambaye yor Gris Bordeaux yor Moustapha Gueye alaaji dam yoroon mbay Gueye papa caaroy papa Modou Kane a Birane Kumba écrit waalo la ko fa jëlee daa luwe si woon suñu kër Fass sam papa jox ko avance kenn du kalaay ay Babacar kenn du yow waaye Babacar daa am waaju baax gu fonk cosaanam fonk dëkkam Badara Kebe mooy ki ñu fal président Grand Yoff mbooloo waaye boo nee sa gox Babacar ba gox bi ràññee la te li nga am nga koy bokk ak ñoom Babacar kooku fexe koo xam. dinaa xam Badara Kebe. nit ku baax la. Badara Kebe mbaalo. wàccal. kay Badara Kebe boo rombee yaa sente càndum foo ne kër Badara. waaw mbooloo moom muy dimbale ñoo lay woon këram. danaa dem seeti ko. si ka foire laa ne. kookoy galaay. yaa gamaar mbokku ndey koy jur. kii moog Ablaye Mbaye ñoo bokk ndey ak baay. Ablaye Mbaye soppe yi. mu ne maak yéen tey ba ëllëg. nu may def. fu may jëm. caxabal mu bañ ay njool lañu. danaa ñëw Mouhamed loo wax xaaral ma ñëw ñu nga cere ñaari njool combat njool booy loo wax man waxuma dara. nga laax la nga <laughs> nañ ma nga lax lu bari. ay Babacar seetlu ma ci naanagu ma de. may nañ ma nga lax lu bi ma ci am daa ñëw tey ji bëri si. fara xanaa tey du pak. daa war a joxe nga lax. moo jaaxal mbëru yaay daaro bi mbëru yaay daaro mi mbëru yaay daaro mi mbëru bawo baab mi Max Mbargaan laa dajal fii léegi mu yor si woo nga lax mu ne saafara la père Max waaw mu ne saafara la xaaral ma pare <laughs> eh mbëru yaay daaro General

waay mburook ndambe mburook ndambe ñu ngi koy lëmas daan nañ la waay mburook ndambe mburook ndambe daanu nga bu yàgg Senghor a ngay bëre ca ginnaaw da koy daan aaway moo këpp doole Zambala ndeysaan force tranquille laa ko tuddee ngi moo final op Ibou Ndiaye ko kera teere gaal gi mbër maa ngi nii école booy ñaala ne ndeysaan Zambala ngi nii Zambala bu pikin walla bu Mbaaw eh mais Zam Zam ci loon. oui maa ngi nii rek Babacar. tey da waaw waaw fii baax na maa ngi waaw. yaram bi daa mel ni lu xaw a tàng de. waaw billaahi dañoo namoon lii Babacar. billaahi. tey am nga yaak bu baax. hey mu amuloon yaakaar du ma ñëw. kee taxaw kan la. sama la. kii mooy père xës. xool ko muy daw. père looy Babacar dawuma dara. mais sa booy bi booy bu doy la. waaw nañ ko ñaanal. te bëre dóor bi gars yi jël ko mu bëre. mbër bu bokkee ak ay moroomam di entraîner di def li ko war. ñi nga xam ne dañoo nekk si bëre dóor bi nañ ko jël kii du mbëru mbapat mbëre bëre dóor la. mais su amulee contact dañ ko indi mu contact si moom ak mbañik ak ordinateur comprendre nga xale yi ñu ngi si écrit bi gars yi leen jël ñu bëre. coach. tey Babacar kontaan bëggee naa la Babacar. eh waay Babacar. Babacar. suba dañoo jëm si combat solo. ñuy ñaanal Eumeu sen ndam lu kawe njortam. loolu yaa ko sañ a ñaan. ndeysaan. déggal mbay ak lum. plan waaye am na problème de Fara ngay bëre Ada Boy Baol Fara fàq na xale ba ci géew bi Fara ci géew bi waaye cey Papis Général Ada Boy da daan daan na ko yëkkati yëkkati mu bañ yow yaay Assane Sène waaw waaw wax nga dëgg nekk fan mars asalam wala waaw mars asalam da ngay bëri ay tournoi waaw dama bëri ay tournoi ni koy bëri bëri waaw bari na kay foo dëkk man Ngoy Aliou Sida waaw waaw sori woo non soriw ma la Babacar. ak yaay la. bilaay wala soriw ma la. ren kañ nga dara wala kañ nga koo dara. ah non dimanche passé demi final ma daan waaw waaw dimanche. ana Moussa Sène asalaam. Moussa Sène mu nga fa rek mu ngi si jàmm ma Moussa. dina ko dégg Babacar kon jaajëf Babacar. nga ca Thank you. Talfa ak général demi-finale lourd Talfa à gauche daw na jël ko Talfa bañ na de Talfa général tey nga def ndànk jarbaatu góor a soog la moom Talfa Talfa eh, daan daan na ko.